Le chômage des jeunes, bon, mon naa s'est dit c'est dû à beaucoup de facteurs hein. manque de qualification professionnelle jeunes manque de volonté politique et tout tamit euh, xale yi dañoo gëmul seen bopp quoi parce que état bi moo a def pas yi nga xam ne moo jeunesse am di jóg di dem di liggéey état moo war a créer ay couloir ay couloir maanaam ay jumtukaay maanaam fu ñu xale yi war a mën a jaar pour ëllëg pour ñu war a mën a am xëy pour participer seen développement dëkk. waaw ñàkk xëyu ndaw ñi fi mu nekk nii soo ko mooy ay usine amatul comme. ay usines yoo xamante ne fala la nit ñi mën di liggéeye wala ay sociétés yoo xamante ne fala la nit ñi mën di liggéeye moo amatul léegi parce que yooyu yëpp soo ko gisee xëj na ñu jiitu woon nguur gi fi nekk nii jaay nañu yenn place yi yëpp yenn place yi yëpp tëj nañu ah léegi su ko defee da ngay gis ne xale yu góor yi dañuy xel di taxawaalu ñii ñu ngi ambulant ñii ñu ngi def naka su dul noonu te loolu yëpp soo ko gisee ñàkk xëy rek la waande doomu Sénégal liñ ko xamee woon mooy daan dooleem ñàq jëriñu parce que sunu papa yi loolu lañu loolu la ñu nekkee woon kon foog naa comme que sunu kilifa yi nag ñoom ñoo nekkee woon loolu ñun suñu juddoo ñun dañoo waroon a topp ci tànku kilifa yi. yaakaar naa daal li ci ëpp ci ñoom la ndax bu ñu xeebul woon am na loo xam ne lii du demee noonu. ndax boo toogee rek naan gouvernement bi dañoo war a wutal liggéey dañoo war a wutal liggéey dañoo war a wutal liggéey leen utal liggéey àll baa ngi fi suuf saa fi mën nañoo bay mën nañoo jënd mën nañoo jaay mën nga taxaw si mbedd mi jaay mën nga dem sa poor ba yenu mën nga dem si marché yi yenu loolu def lu ne te mën ci am xaalis boo xam ne bii du sàcc du agresseur rek du naxaate rek baax na waaye fi mu ne nii am na ñoo xam ne dañuy xeeb liggéey su ñu xëyee daal sol seen dàll defar ba jekk génn nga yaakaar dañuy jàngi wala dañuy def leen fekk ñi ngi xool nu ñuy naxee nit te loolu moom day yàq deru Sénégal. waa ñàkkum xëy moom lu ko waral bari na ndax am na ñoo xamante ni dañuy xeeb métier quoi mooy tax duñ duñ dem di xëy mais wax dëgg yàlla Sénégal moom ko fi nekk boo xëy rek da neex quoi. métier moom mooy yëpp man de dama ci xale bu ci jàngul école soo jàngulee métier am nga problème parce que xam nga li tax jamono bii ñu nekk nii ak jamono bii ñëw képp ku ci jàngul jànguloo école amuloo métier. di nga walaakaana. boo xoolee suñu xale yi li ñuy daj ci àll bi buñ ko nangoo toog fii si dëkk bi buñ ko defee mu baax ndax dañuy dem ci àll bi ñu liggéey liggéey boo xam ne bii buñ nekkee ci dëkk bi duñ ko nangoo liggéey te la ngay dàq kiwal mu dem ci àll ba nag boo ko dàqee mu ñëw ci kër gi man daa su doon sama sago suñ doon di toog ci dëkk bi di liggéey ci dëkk bi bañ a benn métier liggéey boo xam ne bii dagan na rek ñu jéem ko def te xool ni ñuy bañ a xeeb métier daal xeeb métier baax man mii di wax ak yow du ma tudd palaasu du ma turu palaas bi dau lijjanti naa samay kayit yëpp pour rek liggéey fa parce que liggéey ba ña koy liggéey tey dàquñu ma ko amul loxo bu gudd waande depuis daw ba léegi la fa dugg ci liggéey bobu ma doon ut ëpp na juróomi nit waaw ta lolu loxo bu gudd rek molen leen fa duggal Sénégal lolu rek ko yaq loxo bu gudd ñu ne so amul loxo bu gudd sa dara du baax ak itam sa poste disul muy walu affaire guerre yi ñuy wax ni lolu yaq Sénégal léegi. lolu c'est une pratique néfaste. lolu mo fi am lu ñu war bannir la lu ñu war a la dañ ko wara bannir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut amul ki sama mbokk la amul ki sama rakk la amul sama ki la il faut recruter les gens de par leur compétence il faut chercher la compétence lolu tamit ci liñuy ñuy ci liy bloquer sunu sunu développement ci la bok waaw góor bu xeyut liggéeyut am ay soxla am dooleem kooku euh, pour mu def njombe day yomb moo tax daanaka guur moom liggéey rek moo ko war ndax boo xoolee agressé yu bari yi ak këf portable yu bari yi ñu koy def ñëpp liggéeyuñ mais kuy xëy di liggéey euh, noo wàcce ci jàmm ak salaam ngay xool mais pas ngay romb kenn di jël alam lépp lu ñu xam ne buñ ci yëngoo mu am am ci barke rek ñu jëm ko yëngu daal man daal loolu laa xool. li ma gëm daal mooy góor su ba vingt ans. yaa ngi dégg su liggéey doo neex man loolu laa loolu laa loolu laa gëm quoi mais pas ngaan damaa jàng ak euh, ak damaa amul lu ma liggéey ak yooyu noonu boo amee vingt ans bu liggéeyut rek doo ko neex man loolu laa gëm. wax dëgg yàlla population bu toll nii ñu ne quatorze millions d'habitants su ma yeboo ma ne suñu yeboo ñu ne six millions yi rek a ciy xëy lii des yëpp a ngi taxawaalu su boobaa kon musiba ngi am si waaw léegi nag nguur gi moo mën a jàppale nit ñi. wut ay place où tabax ay société ak ay compagnie yo xamantene nit ñi dañuy mëna liggéey état bi mo wara imposer la population sénégalaise comme par exemple ñi de 0 à 16 ans tout sénégalais qui naît ici da suivre le circuit scolaire ba 16 ans à partir de 16 ans ou 18 ans là ce fait que tu es doué dans le système éducatif Go continuer ce, ce circuit scolaire. Si toutefois tu n'es pas doué dans le système éducatif, tu vas suivre une formation professionnelle impérative à ton choix.